الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ñu ngi fàttali mbokk yi tardé ne da ngeen di julli ñaari rakka gannaaw ba ngeen toog allahu akbar allahu akbar te yéen mbokk jullit ñi ñu ngi sant suñu boroom ci yëg ni lépp luy xéewal ci moom rek la jóge ñu ngi seede ne moom dong mooy ko yeyu ñi koy jaamu ni ñi koy jaamoo kañu ko war a jàngal mooy yeneen tamba muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey yéen mbokk jullit yi ñu ngi màggal suñu borom yàlla di sax di ko màggal di seede ne kenn yeewul ñu ko jaamu ko ku dul moom ñu ngi koy màggal màggal gu amul ab gannaaw loolu ay yéen mbokk jullit ñi ñu ngi nii amoon gan gu tedd gan goo xam ne nii moo nekkoon bu ñu booleel ñuy wóor ca bëccëg di taxaw ca guddi di naafila di jàng téere borom bi di génn suñuy sarax yi mbokk gan googu dem na tey waaye dem googu mu dem nañu xam ne mbokk jullit wóotu na ko bis bu màgg mooy bis bii ngeen nekk tey suñu borom yàlla màggal na ko muy it bu tedd ci itul islaam ñépp ñoo xam ne góorgóorlu woon nañ ca weeru koor ngalawaay ñu ngi leen di bégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji wóor ji day dana am ñaari mbégte su wóoree bay dog kooram dana am mbégte bu muy am waaye bis bu dajeeg boroomam dana bég ci koor ba nga xam ne wóoroon na ko ay yéen mbokk jullit ñi xam leen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam day gan gu tedd googu ñu gane si woon nee na yowm alqiyaama heure bu la yàlla taxawalee ci kanamam taxawaay boo xam ne boo fa jógee immaa nga jëm aljanna wala immaa nga jëm sawara taxawaay boo xam ne doo gis wayjur doo gis avocat doo gis ab sëriñ suñu borom ne suñu yonente alayhi salaam nee na yàlla dina indi li di chahru ramadan chahru ramadan ànd ak li nga xam ne mooy alquran su ko defee wéeru koor ne ay sama borom sa jaam bii day maa ko xañoon ci muy lekk bëccëg ak bànneexam alquran ne ay sama boroom sa jaam bii day maa ko xañoon muy noppalu guddi di nelaw ci noonu la yàlla di nangoo ramm gañ lay ramm su ko defee suñu boroom daal di nag wàcce yërmaandeen ci yow njëlbeenu yërmaande mooy musal na la ci sawara gannaaw ba ñu jox la sa téere ci sa ndeyjoor téere boo xam ne boo ko ubbee ba gis ñu bind ci ne texe nga àjjana nga jëm da nga dem won ko mboole mi doomu aadama xool leen samay résultat génn na man day maa ngi nar dem àjjana àjjana jooju nga xam ne suñu borom nee na la fa nekk ci xéewal doomu aadama mënu koo xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne àjjana daal mooy lu bët musul gis lu nopp musul dégg lu doomu aadama mënul xalaat ba yegg ca mu ne jàng leen waxi borom ba yàlla nee na maa ngi dencal sama jaam yu baax yi loo xam ne benn bakkan xamu ko mbokk ñi ngi màggal suñu boroom ñi ngi sax di màggal suñu boroom di bëggal yow mi nga xam ne weeru koor bii nekkoon na occasion ci yow nga tuub suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam day nee na képp koo xam ne woor nga weeru koor yaakaar pay ci yàlla mboolem la nga jiitaloon say bakkaar yàlla dana la ko baal mbokk weeru koor mi ngi nii doon weer woo xamee ni nii ñëwul woon rek pour yóbbuñu ci yàlla gannaaw ba mu dem ñu ànd ak moom dem waaye weeru koor dañoo ñëwoon ngir gën ñoo jegeel suñu boroom ngiree bànneexu jege yàlla googe daa di saxaat ci ñun ba baa weeru koor diñ fa fekkaat ay yow julit xamal ne doo jaamu yàlla weeru koor waaye jaamu yàlla nga sa dund gi yëpp yëgal yow julit su dee ne yaa ngi ci jàkka ja jaamu yàlla nga yaa nga ca marché ba jaamu yàlla nga yaa ngi nekk sa biir kër yaa ngi nekk foo mën a nekk ci tukki xamal ne yow ab jaamu yàlla nga suñu borom moom moo la sant nga déclaré daa ji ne man day samay julli ak samay koor sama dund ak sama dee lépp jagleel naa ko yàlla mi nga xam ne mooy borom mi ndaafan yépp ay yéen mbokku julit seen borom mi ngi noonu lim la sant nga di ko def lim la tere nga di ko bàyyi loolu mooy sant gën koy sant nee na nag fii ak yéen a ngi sax di ma sant maa ngi sant maa ngi sax di leen dolli samay xéewal mbokku julit ñi ngi màggal suñu borom te di sax di màggal suñu borom ay yéen mbokku julit xam leen ne day tey jii ñi ngi nekk ñun di seetu ci jàkka ji ak ñi koy feete feneen waaye fàttaliku leen nag de at ñuy passé ana ñaata ci ay million ci doomu aadama ñoo àndoon ak ñun weeru koor ren yàlla dogal na ña nga wuy ji seen boroom loolu it yow julit dalay fàttali ne loo yàgg yàgg fekke bis da nga mës a wuute loolu moo tax ba nga la way wuute googee dala boo koy bàyyi xel àdduna ak li ci biiram ngal la way bu mu la wor àdduna li ci biiram yépp taar la kër yi ay taar lañu soxna yaag njaboot ga yére yu bees yi ngay sol waaye nag xam leen ne wa libaasu taqwa zalika xayr ngeen taaroo ragal yàlla moo gën ngeen yóbbaloo ragal yàlla moo gën loo mën a dajale ci seetaab dollar ki immeuble fa fa inna xayra zaadi taqwa la gën li ngeen di dajale mooy jaamu yàlla gu sell jaamu yàlla gu ngeen dëppaleeg sunna allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ay yéen mbokk jurit ñi sant leen seen boroom dem leen tànnee ci ay mbindaa fanam jox leen xéewal goo xam ne mooy gën ci xéewal yi te mooy xéewalub lislaam même bu doon tenene boo añee doo reer même bu doon yaa ngi néegu ñax ya maadaama yaa ngi ci lislaam yaa ngi ci xéewal gi gën a màgg sant leen yàlla ci loolu mooy leen ci lislaam boobu bu leen ko wuutale ak dara sàkku leen seen ngërëmal boroom xam leen ne képp ku sàkku weneen yoon wudul lislaam suñu borom yàlla du ko ko nangul islaam boobu nag xam leen ñaari laaf lay lay naawe laaf bu jëkk bi mooy xoolal sa diggante ak sa boroom lam la sant nga gëm ko gëm ko lam la digal nga def defal lam la tere bàyyil waaye beneen laas bi it mbokk julit mooy diggante ak sa diggante ak say mbokk julit ay mbokk julit du lor julit mbokk julit dafay xool naka laay def pour jëriñ julit mbokk julit mooy jéggal julit mooy am yërmande ci julit mbëggeelu yàlla ci julit dana tol ne lam bëggee jaamu yàlla yi bañeelu yàlla dana tol ne la nga bañee jaamu yàlla yi suñu borom yàlla subhanahu wa taala tëkku na ci safara bu tar ci képp koo xam ne da ngay lor ay jaamam mbokk julit ñu góorgóorlu sàmm suñu bopp sàmm leen seen cër yi sàmm leen seen dégg yi ak seen gis yi taxaw leen ca la nga xamee ni nii moom la yàlla gërëm ca la nga xamee ni nii mooy suturaal seen awra yi ngal la way mbokk julit ku nekk na ñoŋol alali moroomam na ñoŋol deriti moroomam na ñoŋol derub moroomam bàyyi leen jëw yeeg fen yi ak rambaaj yi lépp lu aju ci lekk riba bàyyi leen ko julit du lekk alal ju ko daganul julit du sàcc julit du wor ndinkaane julit mooy ka nga xamee ni nii lay jubluwaayam mooy taxaw ci ne danaa jéem a bokk ci ñi gën a ëpp njëriñ ci jaamu yàlla yi yonent yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci nit ñi mooy ki gën a am njëriñ ci jaamu yàlla yi ki ëpp njëriñ ci jaamu yàlla yi nag mooy ki leen di digal lu baax di leen tere lu bon loolee commencé ko ci sa njaboot gannaaw boo commencé ko ci képp koo xam ne sës na ci yow fi ngeen mën a nekk di leen diglu lu baax dee leen tere lu bon ku gis yéen lu bon na ko dindeeg loxoom su mënul na ko dindeeg làmmiñam su mënul na ko dindi ci xolam ñii rek ñooy ña nga xamee ni ñii ñooy ñooy ñi texe seen borom yàlla wax na ci saar bu matalee mboole mi santaaneem nee na day doomu aadama yi ñi ngi ci perte lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm tey digle lu baax di digle lu bon di di di digle la nga xamee ne nii mooy aju ci ak muñ ay yéen mbokk julit mooy leen ci diine islam bi mooy leen ngeen doon benn buum yéen a bokk la ilaha illa allah bokk muhammad rasulullah bokk waxtu yi juróom bokk kaaba gu tedd ga bu leen nangoo ci seytaan ñëw teqale leen naan ñii ñooy waa kër njaay waa kër sow waa kër demba mbokk loolu ci seytaan la jóge واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويلن يين ييب تي دين يالا دي بولن تيخليكو اي يين سونو سخنا يي تدي ماغي مujj ci yeen la yenen ci bi don mujj ci yeen xam len ni yeen yeenay fondement xet bi yeen yeenay pi xet bi yeen yeenay lepp xet bi xet bu la gën ay jigen mo la gën doom yi ci yeen lay juddo yeenay école bu jëk yeen yeen leen di tété ngal la way njabat googu suuxat leen seen xol yi ngëm yàlla suuxat leen ci kersa suuxat leen ci ñu sàmb seen awra fexe leen di muuru na ko yàlla subhanahu wa taala sante fexe leen ñu doon ñoo xamee ni nii seen tànk daañ ko yemele fa lislaam bëgg bu leen bàyyi fu leen neex dem yonent bi alayhi salaam nee na buyutuhunna xayrun lahunna jigéen fa gën ci moom mooy na toog këram bu demee bay ba dara desul dul génn mu xool ne gën a rafet ci melokaan mu daal di koy génni moytu leen bokk ci ne yonent bi alayhi salaam doon wax nee na am na jigéen ñuy nar a ñëw sama xeet fi axiri zaman yàlla dana leen nattoo seeni yére bari na lool waaye buñ génnee day duñu mur seen awra yonent bi alayhi salaam nee na xetu àjjana du xëy sax ñooñu ngal la waaye fexe leen ba seen njaboot duñ ci bokk na ngeen doon ñu déggal seeni jëkkër na ngeen doon ñoo xame ñu ni da ngeen di en sax ci la nga xamee ne muy ak muñ loole itamit suñ koy wax jigéen ñi ay yéen góor ñi xam leen ne yéen nag yéenay yéenay aar jigéen ñi yéen leen war a taxaw yéenay seen kilifa yéen a war leen jàngal lislaam jiitu leen ci jaamu yàlla ngeen ñu rot ñu roy leen ca képp ci yéen sàmm la képp ci yéen daan ko laaj la nga xam ne moom la doon sàmm yowm alqiyaama xam leen ne góor gi gën ci góor gi mooy góor ñi gën ci njabootam ca ka gën ci njabootam mooy ka leen taxaw ba nekk jaamu yàlla yu baax lii ngeen bàyyi ci xel bu baax kon loolu mbokk julit benn tënk la boo xam ne ñi ngi leen ko doon tënkal gannaaw ba nag ñi ngi jubb suñu boroom ay suñu boroom yow mi nga xam ne yaa ñu santoon weeru koor yow mi ñu bindoon ngir ñu jaamu la wërsëgal nañ ñu koor gi paase na ay yàlla la ca baax yàlla nag ñu ko nangul ay yàlla la cay njuumte yàlla nag ñu ko jéggal yàlla nag ko delloo si ci ñun mu fekk ñu ci jàmm ak afiya ay yàlla yàlla na nga wàcce ci ñun jàmm wàcce ci ñun xéewal yàlla nag ñu teete ila siratil mustaqim yàlla nag ñu defal suñu soxna yi ak suñu njaboot gi suñu xol sedd ci ñoom yàlla nag ñu boole ci sa yërmandeeg sa ngërëm ci àdduna boole ñoom ñoom sa yërmandeeg sa ngërëm ci àdduna yi kawe ya yàlla na yàlla boole xolu julit ñi yàlla na yàlla teg leen ala siratil mustaqim mustaqim mboole mi noon yi leen nar a yàqal yal na yàlla delloo yàq ga seen gannaaw yal na yàlla nangul ñu mboole mi jaamu yàlla ñu defoon ci jaamu ko si koor gi ñu ngi jagleel it ñaan mbokk yi nga xam ne nii ñoo jëloon seeni alal indi ko ci jàkka ji ay doomu aadama yu bare bari weeru koor bi yépp guddi gu nekk ñu daje fii def ay ndogu yal na yàlla nangul leen loolee ñu ca defoon soxna ya daan bàyyi seeni itte yi di ko taxaw di ko togg yal na yàlla nangul leen ñoom tamit xale yi nga nga xam ne yi jàmbaar lañu jàkkaar yi taxaw di ko laabal suba di ko laabal guddi di ko organiser yal na yàlla taxaw ci seeni mbir yéwénal leen àdduna yéwénal leen alaxira mbokk julit yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet defal ñu àddina muy suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunana min alxasirin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد